waa mbokk yi ñu ngi ak euh, Pape bu Sénégal mu nekk euh, présentateur sportif alors Pape Maguette maa ngi siyaar. waaw maa ngi lay nuyu maa ngi siyaar bu baax a baax. Ah. alors lamb tëj ci combat yi nga xamante ne jaar na fi muy combat yu mag yi wala combat yu yemba maay ni mm. ban combat moo la ci gën a marqué ren mu saf sap neex ngay sentir sa bopp en tant que euh, je sais pas amateur mais en tant que présentateur en tant que mm. euh, je sais pas sportif euh, kii euh, journaliste. voilà yi ma yi ma si gën a marqué mooy benn bi. bon ñëpp la marqué ah muy combat fin de saison combat royal bi bombardier déggal Eumeu Sène ak euh, Modou Lo boobu daf daf ñu marqué parce que bi mooy une première fois ki yor titre roi des arènes daanoo si façon daanu boobu maanaam ñëw xeex jàpp ñu dóor la nga kawate ak façon bi mu daanoo loolu dafa marqué ñu bëri bëri bëri dafa leen marqué quoi voilà voilà boobu bokk na suñuy marqué mais am na ay yeneen ak yeneen yoo xamante nii marqué nañu parce que dañuy wax toujours rek les combats yi nga xam ne moom mooy mbër yi nekk au sommet parce que booy xool mbër yi nekk au sommet ñu ci bëri sax bari ñu ren. bari na ñu def ay année blanche moo tax ba combat phare yu lay marqué ci ci ténor yi du bëri mais benn rek lañ ciy mën a lim moom mooy Eumeu Sène ak ak Modou Lo boobu moom marqué nañu bëri euh, ci ci saison bi mais am na yeneen yoo xam ni tamit marqué nañu yu amoon ay Iba Mar ay arène nationale muy les combats yi nga xam ni ay combat jeune la. yooyu tamit bëri na ci ay combat yoo xam ne tamit euh, nañ ci bàyyi xel parce que ñooñu ñooy avenir u làmb ji tamit. merci beaucoup grand. merci je t'en prie. alors maa ngi ak Lamine. le vacancier. dafay laaxatu. saa booy dem vacance doo ñu yóbbaale. fan dem fan fan fi nga doon sangoo piscine ak. man xaw ma foofu. non damaa gaa foofu Espagne la. damaa demoon pour liggéey Gambie. gaa nee nañ Îles Canaries la. non Gambie la Espagne lañ Adama Baro. su ma dem Espagne ñooy ànd. <laughs> man ak man ak waa Equivox. waaw maa ngi lay ziar. delloo ziar Cheikh naka voyage bi Gambie. sant sant jàll na si jàmm alhamdulilah waaw macha allah. saison bi tëj. Mm-hmm. en tant que reporter en tant qu'amateur. ban lamb moo la gën a marqué ren ci saison ren. Balla gay Modou Lo. Balla dagg na Leewtoo bi Modou Lo Modou Lo gel arrière KO Balla Gaye jàppul Balla Gaye jàppul combat métti na jàppante nañu Balla Gaye Balla Gaye jàpp na Modou Lo ngi attention ñu ngi xeex Balla ngi dóor Modou am na ñaari ngemb léegi Modou Lo benn loxo bi bàyyi na ko oh combat bi métti na xeex nañu sànq Balla Gaye mais Balla Gaye lu muy def nii Balla Gaye bàyyi na Modou Lo ko suuf waaw mais Balla lu muy def nii. Modou Lo Balla Gaye. Modou Balla Gaye xëy ba ngoon gisuñu benn site internet bu wax ci ñoom gis ñu benn journaux bu bind ci ñoom boobu moomu gën a marqué ci saison bi ak Gris 2 Reug liggéey bi. combat bu ndaw la tollul comme combat Balla Gaye Gris tollul comme combat Eumeu mais mois de mai ak mois de juin dafa jëloon coowu làmb. Gris de Reug Reug Gris day ñëw waaye nag mooy tut sa sec Reug Reug jël ci suuf lay def ah way nañ ko mënoo koo dóor. xam nañ ko mënoo koo dóor c'est impossible da lay gis. ñoom ñaar ñëpp physiquement taxaw nañu. mu ngi dajale ngemb yi ñaari loxo yëppam ci ngemb waaye Gris it mu ngi koy jéem a songale daan daan na ko daan da daan ah way boobu ci 3 mois yooyu moo ëppoon promo ci combat yi fi amul yëpp dafa suuloon yeneen combat yi ci mois de juin bi ak mois de juillet bi yëpp waaw. Matar maa ngi delloo ziar baax a baax moo grand. naka vacances yi. maa ngi si kawam di góorgóorlu yaa ma gën a xam ñun moom vacances mën nañ sax bañ a nekk vacances. alors lamb ji tëj na en tant que présentateur en tant qu'amateur en tant que koo xamante ne day dund lamb ban combat moo la gën a marqué wala yan combat ñoo la gën a marqué ci saison ren. Hmm, saison ren combat yi ma gën a marqué bokk na ci. Balla Gaye Modou Lo. Balla dafa neex. retouru Balla Gaye dafa neex combat boobu combat bu neex la. wax dëgg yàlla. spectacle ambiance ak bëre. Balla Gaye nee koy rey Balla Gaye nee day rey Modou Lo Modou na nee da koy lekk Balla Gaye Modou Lo nee day soob Modou Lo ko wax mooy lépp mooy ndey mooy baay. Ardo am liggéey la bokk. waaw muy am am liggéey tey. Ah? beneen bi tamit bi ma gën a marqué dafa ma mar dama ko dama ko fàttaliku parce que ni mu amee moo yomb mooy diggante marle ak Boy Bawal. ak Boy Bawal. dala bett quoi. ma bett quoi làmb jooju mënuñu ko préparer ñu ñëw mu ñaari adversaire yoo xam ni ñu war a bëre xam nga mu jeexee noonu dafa xaw a yomb quoi loolu moo tax mu mu marqué ma. Marley ak Boy Bawal marle dóor na Boy Bawal la ngi arrière daje na ña ngay xeex daje nanu Marley xeex la indi Marley xeex la indi. ah nee na ko daan na ko nee na def na quatre appuis. naka vacances yi. sant Sëriñ Bamba rek ñun moomuñu vacances ba tey ñu ci affaire yi yaa ma gën a xam. nekkoo woon ci vacances yi. non ndax daam lu bees tax lu may def ak mbëri muy vacance su mbër. waaw ah, kon xam nga néew ma ci vacance. néew ma ci vacance. xam nga talutoo vacance. kun warul doo tal kun wàccul doo tal a waree. kun warul doo tal waaye di bëgg ci yéen nag. liggéey bi rafet na macha allah. ñu ngi koy seetaan mi ngi jaar yoon. yàlla yàlla gën a yokk xam-xam xam nga yokk affaire yi. bëgg nañ ci yéen daal barki borom Touba mi ngi nice de. mi ngi nice. alors lamb ji tëj mu nekk saison bu neex nan nga gise saison bi en tant que reporter en tant qu'amateur nan nga gisee euh, saison bi ak ban ban combat moo la ci gën a marqué. waaw saison bi neex na mais booy xool bu daaw bee mën wax bu daaw bi ci la combat yi soog yi gën a ndax ren li tax bu xaw a am gàllankoor coupe d'Afrique da cee dafay jaar koor gi jaar fi ak yeneen ay a xam ne waa élection yi ñu ci biir. ak manque promoteur yi mais saison bu neex la saison bu neex la tey su ma doon xalaat combat bi gën a neex ci saison bi ama seen ama seen Modou Lo waaw ndax euh, ni mu jeexee bari na amateur yu bari yoo xam ne xalaatuñ ko woon. ñaari mbër yaa nga ca de waa parcelle de xanaa ñu ngi ne teg di déglu seetaan Pikine itam ñu ngi ne teg di déglu seetaan xanaa lamb ji waree su ko way ana Samba yaa ne ngaan doole yu bëree. laale baaxu góor la nañu laale waaw waaw ëmma ngay gëdd de Modou jam góos ëmma daa bëgg a dem de waaye Modou góos lay jam Modou yëpp góos la koy jam di dox ëmma laaw na Modou eh doori ko mu daanu laa ilaaha illallah eh Talla Ndiaye. yoo xam ne xalaatuñ ko woon ci kaaw bi waaw Modou Lo mën naa daan Eumeu Sène mais ak façon boobu bett nañu bari ah man bett na ma bokk wax naan la war naa mën a daan Modou Lo jë Eumeu jël bu rëy. waaye ni làmb ji terminé man ça m'a fait grande surprise ci côté boobu quoi foofu daal la xaw a mais saison bu neex la saison bu neex la saf na làmb làmbee na xanaa nit ñaan rek bu déwénee promoteur yi ñëwaat sponsor yi gën a ñëw ndax mu gën am ñu gën a améliorer am lu dàq loolu ndax làmb am na lépp loolu am na lépp loolu ñoo far yo <laughs>